mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu jukki leen li ci gën a fës dore ko tolluwaay mbas mi tey jii li ci àjjuma gi ci limuk junni ak fukk ak juróom-ñett fukk ak juróom ci test yu ñu amal foofe ca makkaanu jëwriñ ju ñu dénk wàllu wër-gu-yaram juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar fukk ci doomi aadama ñoo daal di del si ami jàngoro ji di Covid daa ñu si dëkk nu mu gën a yaatoo biir xibaar yi daañu del si fii ci diwaanu Thiès foofee ca quartier nag daanaka mer ba futt la ñu def la ko waral moo di ñàkkum ndox bi wéy di lëmbee seenu askan tax nag ñu wàccoon ci euh, mbedd mi doon dox doxu ñaxtu loole daañu si dëkk euh, ci biir euh, xibaar yi daa ñu waxal leneen mu soxal wàllu politique ak tukkib nemmeeku bi fi njiitu réew mi président Macky Sall war a amal nag ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bi ñu dëgmal Ndiaga Diaw di responsable parti démocratique sénégalais daal di nag samp ay laaj jagleel ko nag njiitu réew mi président Macky Sall yi lii daañu ci toftal xibaar yi ñeel biti réew li ci yéenekaay yi moo di ndar képp yi la xibaar tey jilee ajjuma yemook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin atum ñaari junni ñaar fukk ak benn asalaam mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi dañu koy dooreek tolluwaay mbas mi tey jile ci àjjuma bi ci limuk junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci test ñu amal foofee ca makkaanu jëwriñ ji ñu dénk wàllu wër-gu-yaram juróom-ñaar fukk ci doomi aadama ñu daal di dellusiwaat waat jàngoro ji di Covid 19 bu mel ni lii di jàngoro yi coronavirus jamono ji lim baa ngay wéy di yokku résultat yi nu mel mu ngi tukkee ko foofee ca makkaanu waxtaanu jëwriñ ji ñu dénk wàllu wër-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr foofee ca Mboro ca garage bu Mboro ñi nga xam ne rek ñoo di chauffeuru clando yi jamono ji ñoom itam mer ba futtu la ñu def la ko waral moo di seen chef de garage boobee la nga xam ne jëm na ci ay juuti mu koy teg ci ndoddu chauffeuru clando yooyee loo ne la nga xam ne nag ñoom chauffeuru clando yi li mënuñu koo nangu benn yoon tax nag ñu mer ba futtu lool wàccoon ca mbedd ma ka nga xam ne nag moo yor seen kàddu di euh, Cheikh Ndiaye euh, ñu teewlu ko ci euh, micro Cheikh Fall. ndax ñun waa Mboro dañoo sonn sonn goo xama seeni foo ko natt rek paase na ko coono gi nag kenn teguñu ko kudul benn chef de garage boo xam ne dafa nekk biir Mboro ñun ñu doon ay clando yoo xamante ne dañoo nekk ci dëkk bi am fulla ak fayda di liggéey sàccuñu fenuñu taxawàlluwuñu di liggéey di góorgóorlu di daan doole kenn ku ne yaa sa soxna yaa ngi say soxna yaa ngi say njaboot liggéey rek lañ xam ñu ni ñu nag euh, clando yi benn clando bu génn ci dëkk bi da ngay ñëw pour dagg bon boo xama seeni bon bi yow jariñu la dara féetewu la fenn ñu di ko lekk guddi di ko lekk bëccëg di ko lekk suba ngoon chaque jour voyage boo def di nga ñëw dox dugg si biir gaare bi joxe 200 boo yebee 4 personnes ñu ne la duñ la may bon tey duñ la ko may suba. léegi nag ñun jooytu nañ ko fu ne dem nañ fu ne fi nga xamante ne moom mooy sunu sous préfet euh, meewaan dañoo jugee fii fi ñu war a dem yëpp. ñu dem fa bi ñu yeggee foofu di ko laaxaan problème boobu ñu yéen yéen ak jaaykati yàmbaay yéen laa yemale yéen waa sëfooru kalandoo yi nekk si dëkk bi yëpp yéen yu mbooro yéen loolu laa mu wax ñu loolu léegi nag loolu métti ñu ba fa kanamu yàlla ñu di ko wan ni ko ñun dun ay jaaykatu yàmba dun ay tokkati yàmba liggéey la ñuy def yor suñu njaboot léegi nag bon boobu nga xamante ne moom moo fi nekkoon moom lañ mënatul a dagg tey mënatuñ koo dagg suba mënatuñ ko dag ginnaaw suba autorité yi nag nañ si teel a ñëw jub wax ci liñ ciy wax trois personnes yooyu mu amatuñ droit di ñu may ñetti nit ngeen war a yem ñeenti nit moo ne suñu carte grise bu dee sept bu dee dacia bi personnes ñoo nekk quinze mille francs yi nga xamante ne moom la ñu bindoon moom la ñuy fayeeku douze mille la woon te douze mille yooyu yaa ngi war a fayee gendarmerie ñoom dañ lay naj fee ni la kaay fay quinze mille quinze mille yooyu nag mënuñ duñ koo fay tey mënatuñ koo fay suba bàyyee ko foofee ca Mboro wutal ci waat fii ci diwaanu Thiès askan wa nga xam ne ñoo dëkkee ca lew na jamono ji mer ba futt la ñu def la ko waral moo di ne ñàkkum ndox bi wéy di lëmbe seenu askan tax nag ñu wàccoon ci euh, mbedd mi takk nag ay morso yu xonq ñaxtu nag nee ñu ndox daanaka nekk na jafe-jafe ngir ñu dal di koy euh, am foofee. nous lançons un depuis ans presque un manque d'eau maintenant les robinets ne fonctionnent ne sont plus. et les factures sont très élevées. Nous demandons aux autorités de régler le problème car l'eau est indispensable à la vie. Oui, bien sûr, et trop chère même. Les factures sont très chères même. Les difficultés, on ne dort plus la nuit, nos maris ne dorment plus la nuit, nos enfants retardent, surtout les enfants. On a des problèmes le matin, quand ils se réveillent, on a des problèmes. On a fait tout récemment un marche, on est allé à Seno. Oui. Toujours les mêmes paroles. On On est, est très fatigué. On, on continue toujours, on continue. Oui. On continue jusqu'à Norado. mu ngoog mu nekkoon euh, Nogay Diallo foofee ca quartier Léona mbokk yi ñu wax ci leneen mu soxal wàllu politique xam ngeen nag euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent euh, ci weeru juin bi ñu dëgmal njiitu réew mi président Macky Sall fas yéene amal ak tukkib nemmeeku fii ci diwaanu Thiès kii di Ndiaga Diaw di responsable politique bu parti démocratique sénégalais ci li nga xam ne rek moo di conseil des ministres décentralisé bi ñu amaloon fii ci diwaanu Thiès njiitu réew mi jëloon nag ay mesures yu am solo jagleel ko région de Thiès lu ni mel nag mu daal di ci samp laaj moom Ndiaga Diaw di sàkku nag ci njiitu réew mi ngir daal mu daal di euh, tontu ci loolee nga xam ne ay diggale woon yu mu jagle woon askanu Thiès ay kàddoom mu ngi ko dénk euh, ba ñu teew teewlu ko. tournée yi nga xamante ni mi ngi ko nekk di def depuis boobu ba tey mu tuddee ko ay tournée économique ñun ñu jàppee ko ay tournée politique waaye ñëw bi muy ñëw Thiès daf ñu amal solo ba tax ñun aussi dañ ko fas yéene waajal ci waajal boobu ñu am ay. poñ yoo xamante ni bëgg nañ ci wax ak ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall bi ci njëkk moom président Macky Sall le 22 mai 2014 dafa ñëw fii organiser fi conseil des de décentralisé mu diggoon Thiès 448 milliards 384 millions 683 mille 534 francs mu ne dañuy soppi xar kanamu Thiès te ku xam. chantier de Thiès xam ne ci vingt cinq milliards ci la ñu changé complètement visage route nationale bi tey boo duggee Thiès ba promenade des Thiès waa di nga xam ne am na ay soppeeku yu fi am vingt cinq milliards moo nekkoon budget bi kon tey quatre cent quarante huit quatre cent quarante huit milliards fu ñu ko dugal mais war na fa feeñ mais li ñu gis mooy bi ñu ko promettre ak tey amu ci dara loo xamante ni respecté na ko. na polis ak gendarmerie nekk ci wetu peuple bi parce que du ñu nangu ay nervi yi nga xamante ni dëkk bu ñu jaar képp ku ñëw taxaw ne àndoo ak président Macky Sall ñu fekk la fi nga taxaw tabaase la dóor la torture la blessé la maa ngi wax dëkk yi ñu jot a jaar ba jot leen a blessé na seen xool sedd parce que lu leen metti woon Thiès dina leen ko fajal ñun du ñu ñu ñuy dóor du ñu ku ñuy attaqué di wax ne désormais dinañu organiser ay réunion ci quartier yëpp pour mobiliser jeunes yi ba nga xamante ni ñëwu président Macky Sall bi incha allah bis bu duggee Thiès dina xam ne am na ay Thiessois yu ñàkk ngor mais également am na ay Thiessois yu am ngor ñi am ngor ñi nag dinañ dajale continuer di défendre les intérêts des Thiessois ñi ñàkk ngoom ñi nag nañu continuer di ko taggal ay maamam ku nekk ak li nga mën ñun loolu du loo xamante ni suñu mëneen suñu mënin la mu ngoog mu nekkoon euh, Ndiaga Diaw bu parti démocratique sénégalais mbokk yi tey jile àjjuma yem ak ñaar fukki fan euh, ak juróom ci weeru juin boobee léegi nag mu toll ci at ginnaaw bi nga xam ne rek fa nekkoon porte parole bu euh, tarix Tidiane di Papa Malick Sy daal di woon nag wuy ji boromam tey ji nag ñu koy fàttaliku jëmm jooje nga xam ne daanaka béy na waar bu am solo ci diine gi rawati nag ci tarixa cheikh taxaw seetlu gi ñu ànd ak moom Mamadou Ndione sëriñ Pape Malick Sy gane àdduna ci atum 1941 euh, bésub arjuma gi yemook ñaar fan ak juróom ci weerub juin ci atum 2021 la ñu màggal nag benn at ginnaaw bu mu làkkoo euh, ki nga xam ne nag moo nekkoon situb maam Maodo nekkoon it porte parole xalif général des Tidianes ci atum 2017 jàpp 2020 si Malick Sy ndax nga màggee nag ca wetub waajuram de sëriñ Ababacar si ginnaaw ba nag mu daal di mu fonkoon ko lool. lool ca ginnaaw ga nag mu daal di ko it daal di ko dénkaane ka nga xam ne Euh, moom mooy magam di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum euh, mi nga xam ne nag ki nga xam ne Pape Malick Sy daan na wax ne nag moom euh, sëriñ Cheikh mooy lëppam kooki nag di sëriñ Cheikh moom mooy ki nga xam ne moo sos mouvement bi ñuy wax din Moustarchidine wala Moustarchidaat amoon lool maîtrise la nga xam ne moo yitteel wàllub société sénégalaise ki nga xam ne nag mooy Pape Malick Sy daan na faral di wax ne moom de amul kenn lu dul euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al ndax moom jàpp na ne euh, moom moo nekkoon léppam sëriñ Pape Malick Sy moom nag jotoon nañu ko fal mu nekk porte parole xalif général des Tidianes ci atum 2017 ginnaaw mu ñu doon amal rek bésub ñetti fan ginnaaw bu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin Làkko moom nag moo remplacé woon ka nga xam ne mooy sëriñ Babacar Sy Mansour bi nga xam ne moom moo nekk xalif général des Tidianes jamono yi ñu fàttale ne nag sëriñ Pape Malick Sy moom moo nekkoon euh, caatub ki nga xam ne mooy xalifa Ababacar si ràññeeku woon lool ci biir Sénégal Sénégal ci la nga xam ne mooy wutub jàmm waaye nag maîtriser woon lool su toogee ci tànt yi la nga xam ne nag moom la diine wax ak li nga xam ne mooy teel société sénégalaise ginnaaw bu mu wàccee liggéey ca Ndakaaru ci ñaar fan ak juróom ci weerub juin ci atum 2020 ren ji nag tombeek anniversaire am bu njëkk bu mu làkku tax na nag xel yépp demaat ci kilifa gu mag googe ndax njëriñ bu mu amaloon askanub Sénégal mu ngoog mbokk yi ñu tàbbi ci euh, xibaari ñeel euh, biir réew mi la ca gën a fës bokk na ci assemblée générale bi nga xam ne euh, kuréel gii di SODAV ñoo ko doon amal foofe ca Daniel Sorano ki nga xam ne rek moom moo di Ngone Ndour fas ne nag sampaat ndëndëm ngir laaj bopp kuréel boobee leeral li ñu ànd ceeg soxna Fatou Fall. ñu doore xibaaru biir réew mi ak néewu militaire sénégalais ba génnoon àdduna ci benn accident ca Mali dinañu ko rapatrier ci Dakar fan ci weeru juillet bi di ñëw ki ko xamle di direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises waa dina ñu rendre seen honneur militaire ñaari fan ci weeru juillet ca Bamako néew yi si des ñu leen transféré ñetti fan ci weeru juillet ca Dakar ñu fàttali leen ni rek le DETSEN 10 dafa déployé 850 takk der sénégalais diggante décembre 2020 ak février 2021 ñu war fa am fukki weer ak ñaar ñu teg ci société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins ñu taxawal ko juróom-benni fan ci weeru octobre 2016 euh, amaloon nañu ab assemblée générale alxames yemoo ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet 2021 ca théâtre national Daniel Sorano madame Ndour PCA bi fa jugee profité na ci mbooloo mi wax ne kontaan na ci bilan bi mu am malgré euh, pandémie Covid 19 bi yàq seeni activité fesal na itam candidature am ngir conduire SODAV ñu jeexalee xibaaru biir réew mi ci seen kàddu njiit di ñu Ñuma Njaay notable yu arrondissement Fissel Mbadane soxla nañu ñu defaraat leen seen axe Sandiara Njaga Ñaw Xombal Njaga Ñaw Fissel Mbadane ñuy xam leen ni tali kenn mënu cee jaar waaye itam ndox ak courant egseegul ci village ya nekk ca commune boobee mu ngoog sant ko gërëm ko Fatou Fall mi ñu doon jukkil xibaari ñeel euh, biir réew mi mbokk yi noonu la ñuy tàbbee ci xibaari ñeel biti réew euh, ñu ànd ceeg moom Ramatoulaye Cissé. ñu tàmbali xibaar bitim réew yi ci réew bi Niger ay nit yu yore ay ngànnaay yéeg ci ay moto ñoo daal di song dëkk bi di Tillabéri nekk ci sowup réew ma démb ci alxames ba ba faat fa lu tolloog fukk ak juróomi nit ñu fàttali ne gox boobu moo ngi nekk ca seen frontière seen diggante ak Mali faral di am ay cong te koy faral di def di ay jihadiste lu tolloog juróom benn fukk ak nit faat nañ seen bakkan ci ab bombardement bu armée Érythrée def ca benn marché bu nekk ca Togoga féete ca région bu Tigré nga xamle xibaar boobu mooy ñoo yor wàllu wér yaram ci gox boobu jeexalee ko ca réew bi Yémen nekk ca Moyen-Orient ay xeexoo yu metti ñoo am ca diggante rebelle Houthiyya ak force gouvernementale xeexoo yooyu nag juróom-ñeenti fukki doomi aadama ñàkk nañ fa seen bakkan lii lañ leen indiloon ci seen xibaaru bitim réew. sant ko gërëm ko Ramatoulaye Cissé mi ñu doon jukkil xibaari ñeel euh, biti réew mbokk yi ñu tàbbi ci lu soxal wàllu tàggat yaram euh, ki nga xam ne rek euh, moo di njiital fédération sénégalaise de football di Augustin Senghor amaloon nag tukkib nemmeeku si stade Maniang Soumaré ginnaaw bi nga xam ne door nañ fa ab liggéey jëm nag ci pelouse bi mu daal di nag yëkkati ay kàddu jàpp ne équipe Thiès waaye dinañu mën a daal di nag accueillir seen ay naataango fii ak ceeg moom kàddu yi nga xam ne daal dina koy dénk Hady Ba ñu teewlu ko. waaw tey euh, dañu euh, amoon ndaje fii euh, ci stade Maniang Soumaré pour def li nga xam ne moom la ñuy wax réception provisoire bi nga xam ne mooy pelouse stade Maniang Soumaré chantier bi ci boppam dafa ëmboon maanaam gazon synthétique bi nga xam ne FIFA moo ko financé ak FIFA fonds FIFA FOAD ñu ko ciy gërëm. ak li nga xam ne mooy euh, fédération dafa ne moom da koy def ci koppari boppam pour gën a euh, yembal stade bi pour mu mun dalal équipe yi cees yëpp ak ci anam yu jekk donc moo tax tribune bële ngeen gis nga xam ne yeggagul mais sori na torop dina ñu yokkal 1200 places lu ëpp li fi amoon ci njëlbeen donc defe naa loolu lu am solo la stade bi bu demee ba lépp mët ba ñu koy inauguré dina fekk dina mën am lu toll ci xëj na euh, junni ak peut-être. Euh, ba ñaari junni sax place parce que su ma jàppee euh, ci li ñu ma wax fii war nañu am xaj na mille cinq cent ba mille huit cent places yoo xam ne moo fi am donc lu am solo la mais li ci gën a am solo tey li ñu indi fii mooy gazon bi parce que gazon bi euh, entreprise bi ñu ko joxoon muy Galaxy dañ leen ko santoon pour ñu defal ñu ko defar nañ ko ba mu yegga lépp mët na camp yaa ngi fii drapeau yaa ngi fii bande touche yaa ngi fii ñu ne léegi dañuy jëm ci li nga xam ne ni ñu koy yoree la Euh, jamono ji équipe bu Thiès yi euh, ndax euh, Lat Dior ñoom mënatuñ fa football ndax Lat Dior dañ koy defar te dañ koo jagleel équipe nationale amatuñ fu ñu football ñu ne dañ koy teel a ubbi place sax ñu koy inauguré bu tribune bële pare dinañu fi ñëw ak autorités yi ministère des sports mairie ak FIFA pour def inauguration bi maanaam mais tey dañu bëgg a ñëwoon tey pour def réception provisoire bi parce que ci contrat bi ñu xaatim dañ ko war a def pour que entrepreneur bi mun jot li nga xam ne moom mooy peyooram mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV jaajëfal ko moom Ramatoulaye Cissé mi fare woon ci wàllu xarale bi jaajëfal leen yéen itam ci ànd beek seen programme bu télévision Prestige TV rendez-vous ëllëg incha allah jër ngeen jëf